Modou Lo waaye dañ koy door mu daanu. Roi bi ak jàmm nañ ko soxla te dañ koy jëlee incha allah. ay waxul leneen la rek ñun moom ku ñu gis xam ni la nga daan gis ak lii bokkul. gisoo moom day xaar xaju garaas la. Modou Lo du dërëm Modou Lo day xaar Modou Lo du

ñaay boo ñu ngi lay siyaar. waaye nga am jàmm baax. waaw ñoo ngi am jàmm. sama caméraman de moo la xam. ah. ma kii mag la si. dëgg la waay demoon fee parcelle jëlee ay quelques réactions am na lu ñu jot a wax ci seen mbër tey ñu doxantuwaat ñëw fii jàmm gan fas yéene sikk ak yi seen seen avis ñu gis ne yow mag nga si kii di Siteu lan nga nu mën a wax si face to face bi ba mu jàllee lan nga si gis loo ñu mën a wax si. Ah, kontaan rek def nañ ko si fair xumbal nañu foofu neexal nañ ko loolu rek lañ ci bëggoon xuloo xeex amul benn njariñ ñii xuloo ñii xeex jouru combat ba ñoom ñooy bëri ñaari mbëri kese ñooy dugg si géew yàlla may ndam nga xam ne yàlla may na la xeex ak xuloo be bi amul njariñ waaw mbëri santuñu leen loolu waaw ñu gis nañu bëri naan Siteu amul sens ci combat bi moo da koo dàq bëree da koo ëpp doole arbitre sifflé na mooy làmb ji jeex na looy ton si ñi faral moo loola rek boo faralee sa mbër kay li la neex ngay wax waaye ñun xam nañ ñun suñu mbër liggéey na te bëgg na combat bi. jàpp mën na daan Modou. ah mën na daan keneen ku dul Modou sax waaw làmb la rek reenu ñàmbi la dina damme ci suuf dina damme ci kaw garab ci kaw ci kaw la ñuy fekkante waaw. waaw de am naa gëm-gëm ne Siteu dina daan Modou Lo. combat bi taxawee tiitoo. musuma tiit ngir Siteu man Siteu du bëre ji ba ma tiit xam nga lan laay def. di jooy ndax yërëm ko ndax ñi ko topp di ko topp dafa bëri kon moom ndam rek moo gën ci moom waaw bu amee leneen yàlla la waaye ñun ndam lañ koy ñaanam waaw ndax liggéey na bi combat bi taxawee ba tey toogul dem na Amérique ne ñëw na dem na Gambie kii bi ñëw na si signature bi tey la waroon dem jon waa waaw kon jox na komba bi cër waaw li combat bi laaj mu ngi koy def kon yàlla rek moo ci des daal ñun yàlla la ñuy ñaan yàlla na yàlla ànd ak ñun loolu laa xam. ok jërëjëf ñu ngi lay kontaan. waaw kay jërëjëf. mi ngi noonu Bamba nañ doxantuwaat xuus si biir kooku moo nekk euh, mag si Siteu mi ngi noonu kooku mag la Siteu dégg ngeen kàddu yi mu wax waaye ba léegi ñu ngi des jàmm gan ñu ngi si mbedd mi jëlal ma ah Baye Fall Baye Fall da nga jaaxle wala. doxal loo mën a wax si mbër. ah jàpp daan. koy la moom rek jàpp daan. waaw. waaw ah, loolu yomb na de. ah benn joole instant yii moom day xaar. xaju garage la. parcelle neen dañuy dóor mu daal. bon day day xaw rek. ah. waaw bi ngeen am desaay. waaw. Hmm. waaw. si moom bu arbitre. ah. moom. nar si moom. Hmm. xanaa jàpp daan. waaw. yéen am daa mel ni xamul. moo kooku day xaar. day xaar de. billaay. combat bi taxee tiit tiit defu leen ko tiit. non. ñu suivi de masse. moom kay moom bu tiitul duñ tiit. bu tiitul duñ maam Serap Fall. billaay walaay tala bi nga jàppee benn jooy la ngay def bu boobaa ngay xam. baaw bis bi rek. billaay. yaa ngi ngeen daanu. dóor mu daanu. loolu xam nga daa tiit wala da nelaw. bon essence ay wax baaxul quoi bu bis bu boobaa ngay xam baa ba bis ba rek. kaa jëlal ma sama yaay booy bi mu xool luñ fi yokk moom kaay ñëwal fii ñëwal fii jëlal ma meer meer daa mel ne ay beñe lay jaay de bi mooy beñe yal nañ bi xanaa beñe de ah. yaay booy ñu lay siyaar. beñe beñe yal nañ la ndax maa ko yar sita maa ko yar ñu koy ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla may ndam. bu baax a baax waaw. est xam nga ki moom. kan ki mu dajal xam naa ko Modou Lo waaye dañ koy dóor mu daanu waaw waaw. mujj li mu jël coupe bi ñëw waaw dara du xew. est-ce waa Jàmmagat li ñuy wax nekk na loo xam ne lu ñu gëm la. ah bañ a gëm dañoo gëm suñu bopp waaw dañoo gëm li ñuy def te yàlla na ko yàlla may ndam moom Siteu. dañoo gis ñu bari commentaire yi face to face yi am moom ak Modou. ñu bëri neen Siteu ñemewul Modou si face to face non du loolu xam nga rek li jiitu moom moo tax parce que ñoom ñaar dañoo dugal seen diggante kersa ba pare rek. loolu la far yàlla boole leen waaye looloo tax waaye xam nga ne Siteu moom comme jàkkaarlool ku ne dina la wax lu mel ne midi loolu waaw lool dafa am. waaw dañ leen di dóor ngeen daal. xanaa yow déggoo Siteu yow dalay mbalak ba ngay jooy mu dóor la nag daal di ñëw. mbalak yooyu dañoo gis ne face to face bi defu ko bu Modou waxee day noppi. boo gisee mu def loolu déggoo li ma la kersa fu mu dugg wax du bëri kersa fu mu dugg rek wax du bëri nit ki soo ko rusee am na nu muy demee loo xam ne doo wax lu ëpp parce que loolu moo jiitu daal looloo tax si eh, Modou waxu ko dara loo xamante ni lu kii la konoon dina ko wax loo xamante nii ñëppay ree ba daanu rek waaw. noonu ñu ngi lay kontaanee bu baax dégg nga sa yaay li mu wax yow loo si yokk. dama ciy mi bu daal. bu jàppee moom loolu dina xam ne ne ci diggu ñànk tàng bi la ne. diggu ñànk amul soos bi bilaay walaay buñ ko jàppee dinañ ko duma daan ko bilaay yow. mu ngi noonu nee na buñ ko jàppee dinañ ko duma daan ko. barke naa nañ dal rek nañ dal nañ taxaw nga xam ne jàmbaar moo taxaw daa simmeeku ta gëm na boppam lu ñu am lu ñu am nga xam ne lépp dëgg la yàlla mooy maye nag dëgg la waaye ah. wax dëgg yàlla moom jàmbaar la nag moom wax dëgg yàlla Siteu jàmbaar dëgg la barki maaf Serap Fall may na waa jàmm ga ñëpp. waaw sigil nañu war nañu waaye combat bi nag yàlla xam rek waaye yàlla ko yàlla may ndam bëre bëre la rek man mii damay bëre waaye lu mu am jël waaw. ayca mbër nee na day bëre lu mu am jël nee na lu mu am day jël waaye day bëre booy nañ doxaat si kanam. Bamba ba léegi ñu ngi jàmm gën fas yéene am euh, quelques réactions. Baye ñu ngi lay. jaam na ko yaa ngi am jaam na ko tay. nii rek. bëgg naa la de. ëppee baay. naay ah. sant bu baax. bëgg waay. jaajëfate. ñu ñëw jàmm gën dem ñu woon parcelle. te ñu fas yéene leen seet si. def ak yéen waxtaan si combat bi taxaw muy diggante Modou ak Siteu gis ngeen face to face bi mujj bi. la xew lépp ana naka nga ko jàngatee loo ñu mën a wax seen. non instant bii nii Siteu entraîné na waaw. instant bi entraîné na pare yi ñaar yàlla 24 heures rek yàlla may ñu ndam ci kaw Modou Lo. ci kaw kan ci kaw Modou nga naan ci kaw kan kan la am keneen ko dul Modou Lo wala bëgg yow si sa kaw yow ah. mais dañoo gis ne gars yu bëri ba si commentaire yi gars yi neen amu leen benn sens si combat bi muy du doole du bëre du xeex lépp moo da leen ko. waaw ñuy wax loolu nag waxuñu dëgg nag waxuñu dëgg de doole c'était mu dem si États-Unis ñëw ñëpp naan yalmin bi borom dëkk bi mu ñëw indi doole indi masse. nga ne amul doole kan moo wax loolu. est-ce que dem États-Unis rek daa daa war a tax nga ëpp doole moom. waxuma loolu kan moo wax loolu. commentaire rek commentaire ne waxuñu dëgg dañuy nar waxuñu am na doole. Siteu am na doole man mii rek dama am doole. Siteu am na doole mën na bëre Siteu yàlla min la tudd borom dëkk bi tarkindaa bi keroog gis nga bi muy génn fii i ka ñëwoon nga 9h si guddi ñëwoon nga ñëwoo de. caméraman bi moo ñëwoon Bamba. caméraman ñëwoon nga gis nga lim yóbbu gis nga ko ban mbër moo ban mbër mooy génn di yóbbu loolu mos nga kaa gis ban mbër moo jógee États-Unis ñu teewoon mos nga kaa gis. waaw ba pare nag ñuy wax gayaan nan xool li ñuy wax waaye. est-ce que ëpp doole Modou si làmb ji yomb na. kooka la Modou Lo non Modou Lo moom ëpp ko doole yombul mais maanaam instant bi nii nii nii c'est nii toll na ni mu bëri war a toll. lan lan doon wax tollul ñu mbëri Modou Lo bi muy ñëw loolu lan doon wax tollul ñu mbëri war a toll ah mënul nekk mbër bégaay loolu la ko tuddee woon de ba ne ba tuddee ko la kan moo ko tuddee xarañ loolu du békaay nee na tollul ni mbëri tool ba pare di def li mbëri di def si dakay essence fa la toll. essence bii nii foofu la Siteu toll maanaam essence bii nii boo bëggee dégg-dégg Siteu mooy génnee Modou Lo làmb ji li mu yoroon Siteu la koy jox bu si yàlla àndee incha allah. du yomb de. non waaw yow sa waay ñun soxla wuñ li yomb nga naan nii yow li ngay def nii rek yombul fan nga doxee fan nga doxee. zone de captage lañ jógee. igal eh, li ngay def yomb na waaw ba pare nga naan ay li yomb ñun soxla wuñ li yomb nay métti. waaw kay mi ngi noonu Bamba day metti Baye Fall loo si yokk. waaw man aw lu si yokk ah li ma ci yokk mooy que instant bi Siteu mooy borom dëkk bi ah. waaw tarkindaa bi mooy borom dëkk bi moom moo nekkoon borom jàmm gën waaw mais léegi moom borom dëkk bi la tarkindaa bi waaw mu loo na xam ne instant bi jeexal na. seen fit di rafet. kan ñun ñun ñun ñun yow jàmm gën nga dugg de. bi ngay dugg fee porte bi bi ngay dugg fee amoo loo yëg. fee ku fay dugg rek dangay am looy yëg porte bi nii nii nii. fii mooy centrale bi. entrée bi nii ku fiy dugg rek di nga am loo yëg. boo nu fekkee ñu toog rek ñun rek boo ñu xoolee sa yow di nga am loo yëg ñun ñun ay ragal ragal du toog fii ragal dëkkul jàmm gën de non non. jàmm gën na moo leen gën a xotteeku fuuf. kan lan la si Siteu tontu mu ne ko ñun dañoo yàqu. waaw moom dafa xotteeku ñun dañoo yàqu xam nga li. ku yàqu ak ku xotteeku ñooy daje. dañu yàqu ñun mënatuñ ñoo defar waaw bàyyi rek ñu dem jël li ñu moom rek indi ko teg ko jàmm gën voilà. lu nga gisee Modou Lo day xaar Modou Lo mi nga jàpp ne ngay duma ne ngay daan nga am nañu soxla ñun roi bi nga soxla ne ngay jëlee ji parce que maam Cheikh Ibrahima Fall ne nga yëte woo ko roi bi ak jàmm ne nga te ne ngay jëlee incha allah Modou Lo mi nga jàppee xam ne lu ko beng moo ko ñànge parce que maam Cheikh Ibrahima Fall ñu ne dañ leen ngeen daanu. waa passé ñoom seen xalaat loolu la wax ñu mu leen jàppee ñun nañ xam ne lépp dëgg la ñun wàcc làmb ji ba si wàcc bëree dañuy ñu yoon ñoom nañ nekk di def rambax rek waaw ñoo ñoo ñoo ñuy bu dal ba ñun waaw. loolu dóor mu wàcc rek mu jeex. dóor mu wàcc ñun pare nan de. parcelle dañuy dóor mu wàcc ngay dóor mu wàcc. parcelle dañuy xaar ñun waa parcelle ñun suñuy fans la ñun la ñuy bëggee te mbër bi moom yàlla bi moom faalewul kenn. kudul koo xam ne tey jii rek kuy liggéey la da ndax day liggéey. comprendre nga liggéey ñu ne amu leen benn sens ci combat bi du doole du bëri. non loolu ay waxul leneen la rek ñun moom ku ñu xam ni la nga daan gis ak lii bokkul bi boo ko xoolee rek xam ni liggéey na lu bari kon yàlla jàmm yàgg duñu la may dara de. mais noonu nee na la may dara. Babacar ñu ngi lay siyaar. delloo siyaar góor yàlla. waaye nga am jàmm baax ñu ngi sant yàlla bu wér. démb dugg nañu parcelle daal def foofu ay interview mais gis nañu gars yi li ñu wax amu leen sens ci combat bi moo dopp doole moo moo dàq bëre da leen dóor ngeen daanu yow lan nga jàngatee loolu loo si toog. non loolu dóor mu daanu bi fii la fekk baax moo Lo mosul dóor kenn mu daanu te Siteu day door na gars yi këpp de. dóor mu këpp. ah si daanaka koo xamut waaye mu gee ko kenn xamul fu muy taxaw naan ma ne Modou Lo du ñëwee ko mu këpp ñun passé ñaari kaaw nañ fa am. mais Modou dóorul mu këpp. waaw dama bàyyi ama seen muy dóor mu këpp ñun. booy am na yeneen sax de am na yeneen. kan ak kan. am na yeneen xanaa nga fàtte. waaw ñun fàtte ñun Siteu rek nañuy topp fiti roi bi day ñëw jàmm gën. jàpp nga ne roi bi day ñëw fi. incha allah si kàttanu gëm ngeen lool gëm nañ ko waaw. mais seen confiance dafa des bi pare. suñu confiance musul des laa xanaa ko la seetaanoo signature bi signature bi seetaanoo xanaa. maa ngi fa dégg nga Modou mu wax. moo leen moo leen gën a xotteeku fuuf. gën a yàqu fuuf nag xotteeku fii la fekk baax si banlieue bi jàmm gën. Siteu mu gis làmb ji lu fi am ñëpp ñu koy toppandoo Siteu moo ëpp royukaay si làmb ji boo xoolee ñu jàmm rek. incha allah jë incha allah yaay le 24 yàggatul. waaw le 24 yàggatul yow Baye Fall si waaw mais sa waay kon ni sa waay waxee rek. déggoo li si ta wax Modou Lo barki dem si signature bii du yooyu de. billaay bi mooy ban bi mooy ban. bi Baye Fall bi la. bu dëgër bi góor gu dëgër gi. barki alxuraan. billaay terki ndaaw mag borom januar. làmb ji dañuy januar la ñuy déparé fa la njuugee ba biir arène nationale. billaay. njuum nar feesal stade daa nar a fees. ah. waa Parcelles sax dañuy seetaan si Siteu. billaahi. waa Parcelles sax dañuy seetaan si Siteu incha allah fitir roi bi. billaahi mbaxana bi day ñëw de. waaw loolu la wax Bamba ñu dox tuuti nee na mbaxana bi day ñëw yàggatul. siyaar na la Baye Fall. delloo siyaar yaaram. waaye jàmm. waaw ñoo ngi sant bu baax a baax. ay wéeru nekk si kafe gi de. waa gis nga nekk ci kafe takku saan gi xam nga Baye Fall moom Baye Daaru yi moom waxtu bi fi lay gars yi daje naan kafe. mun a ñàkk. ana naka ngeen di waajee combat bi ñu jëm parce que gis ngeen face to face bi ba mu jàllee yàggut. waaw combat moom wax dëgg yàlla xam naa ne sama rakk yeeg sama jarbaat yi ñoom ñoo nekk ci waajtaay mais ñun moom ñaan rek la ñuy féetewoo ndax Siteu moom suñu rakk la suñu jarbaat la. suñu kanam suñu koy ñaanal wala. non du ma waaw maa ngi koy ñaanal yàlla waaye du ma sëriñ bi ñaanalaata rek ci làmb de <laughs> waaye na day doomu jàmm gën ñun ñu nekk ay doomu jàmm gën mu nekk suñu doom nekk suñu jarbaat ñu koy defee ci doomu jàmm gën yëpp ñun dañoo am benn collectif boo nekk fii Diamaguène bu tudd collectif pour le développement de Diamaguène. looloo siyaar na ma la. waaye nga am jàmm baax. waaw ñu sant yàlla bu baax. ñu ngi ñëw sa koñ Diamaguène lan nga nu ma wax si seen mbër mi muy Siteu. waaw Siteu waaw boo nekk Baye nekk jàmbaar amaana xam nga li yëpp kenn xaaru woon gars benn comédien lañ ko soog lañ ko jàppee bu ñu a débuté si làmb quoi mu def ay ay preuve ba ñëw làmb moom mooy loolu reenu ñàmbi la rek waaw reenu ñàmbi la. gars yi neen amu leen sens ci combat bi looy tontu. combat bi waaw mais noonu la làmb ku nekk nu ngi koy décortiquer rek ku nekk na sa sa xalaat rek ngay wax quoi et ku leen xam naa làmb ne ko mu bàyyi ba dimanche. Euh, Balla Gaye ay ay jamono yi ngeen ba mu nekkee roi des arènes ku ko ne woon Balla Gaye dina la daan du ko gëm quoi comme loolu la rek ñëpp dañoo joxoon favori bi Yékini ne Balla Gaye amu ci sens làmb jooju moo ñëwaat rek làmb moo ànd ak Siteu que doole est-ce que doole wala bëre bu daan Modou man yaakaaruma ni doole la quoi na bu doon. doole lan la. non mental la mental bu doy ak technique quoi ak préparation. boo amee xel bi faaw nga am doole parce que doole bi rek. waaw ah, mooy la wax doole boo xoolee benn benn benn benn pour cent la si quoi ndax Mawlo gars yi dégg ñëpp naan doole daanu ko kon mental la mental am mental bu doy am conscience. ñëw doole koy daan de gis nga moo. waaw mais mais am saay faa nga daal mais xam nga day premier deuxième combat mook Balla Gaye ñëpp dañ ne Balla Gaye jeexal na daa fën ak affaire yooyu noonu te moom ñëwee Balla Gaye da koo da koo da koo lamb noonu rek gars ñooy jox seen mental rek di wax ku si nekk ak sa tolluwaay mais daal sa waay ku ne la moom kii daan na bàyyi ba dimanche bu le bu jeexee ba pare après ku nekk mën a def sa kii maanaam li ñuy ñaanal yàlla ñu koy ñaanal ndam Baye Fall la jàmbaar la kenn xaaru ko woon fii yàlla indi na ko fii yàlla jàmbaar la xam na lim bëgg quoi te jàmmagan ñu ngi si ginnaawam te incha allah jàmmagan dinañ ko dooleel gunge ko ba yàlla defal ko ndam ñu ñëw fii féete ko waaw ah, boo xoolee roi des arènes jàmmagan ñu koy soog a bëre quoi comprendre ñaanal waa làmb ñëpp jàppale ko yàlla may ko ndam si rek jàmbaar la quoi yàlla bu ko fayee xolam rek mooy loolu incha allah rafet si yéen waa Lutte TV ah yéen a ko am foo live loolu vidéowul baaxul yéen rek la ñuy topp ah jàmmagan foo live jaajëf bi ngi noonu loos si li TV. li bu wóor bi loo wanewul baaxul yéen rek la ñuy topp. yéen la ñuy topp si yow grand buzz barki Serigne Bamba li ngeen def naaj sax ngay suivre initiative bi rafet na lamb si kaw bu la ragal dara yéen a ngi biir gën. moom euh, waaw moom c'est. da ni. waaw damay defar rek bu baax. xool Bamba sama caméraman bi. loo ñu mën a wax sa mbër yi waaw ah. ah de moom Siteu moom baax na moom. baax na bi moom jàmm gel bi ak baax billaahi baax na kaay. am na combat de. Eh, dégg nga am ñaan am ndam rek. siyaar Baay Faal. Baay Faal waaw maa leen delloo siyaar. yaa ngi am jàmm baax. sant ko tedd waxtaan ak yow seen mbër mi loo mën a wax si ta suñu mbër bi ah ñun dañuy dëggal suñu bopp mu loo tamit na dëggal boppam rek bu dëggalee boppam rek làmb ci jeex boobaa xoolal drapeau bi lay jëm si bu neexee yàlla ko tedd ki parce que borom Touba Mbacke mu loo moom day xaar Modou bu dëgalee boppam. bu dëgg dëgalee boppam ñu andi bi roi bi. parce que sëñ Bamba. daa loolu nga wax de. affaire dafa ñëw ba pare. moo ngi suñu. fas yéene ngeen dëgal yéen seen bopp. kan ñun buñ ko dul woon dëgal kon buñ ko attaqué. kon duñ ko jël. parce que sëñ Bamba kon buñ ko joxee dañuy bañ. Modou Lo du dërëm Modou Lo day xaar Modou Lo du puus. day xaar de ah benn question yi ma doon laaj gars laa lay laajaat ba combat bi tax rek léegi gars yi ñu ne leen sens amu leen doole du bëre a fi ngeen mën a si loolu Baapaar fii xam kan moo fi am doole yàlla rek moo fi am doole barke Serigne Touba kenn amul doole ko dul yàlla na xoolal wërsëg bi yàlla jox nañu ko ñun ñu ngi sant yàlla bu wér bés bu ñu jàkkaarloo ba roofante na xam ne doole xale ak doole mag du benn ñoo ko ëpp doole junni yoon sut ko ëpp ko moom daama la kooku bëreeg moom dafa neex. daama bu jafee bëreeg. moo kooku du tus. man maa la wax loolu man la buyee kooku du dërëm. mi ngi noonu Bamba cag-cag bi mi ngi dox. waaw mi ndànk ndànk rek bilaay. fan ngay daw fii jàmm. ne ci arabe. waaw. ñu doxantu woon fi fas yéene laaj seen mbër muy Siteu naka nga ko jàngatee face to face bi weer. non Siteu moom wax dëgg yàlla jàmbaar la quoi indi na doole tamit xam nga sa am na yaakaar si moom tamit. waaw. gëm ngeen ne roi bi day ñëw. gëm na ni day ñëw moom incha allah. waaw. xam nga Modou xarañ. see xel ñaar. nga li ne si xarañ. non mais xam nañ li nekk si Siteu billaay wallaay. sax bi fees kon. waaw da fees dell sax bay tóoroo. wóor na yàlla. gars yi leen di kaaw de dóor mu daanu. dóor mu daanu du am. bëre moo fay feeñ. waaw. ayca mi ngi noonu. waaw dinañ bëre dinañ dinañ daan incha allah waaw. jëlal ma ko. fii la demee na ayca mi ngi noonu. nee bu gars yi ragal dara roi bi day dellu si Bamba ñu jàpp. gannaaw ñu ngi lay ziar. ñu ngi delloo ziar wér. nga am jàmm. sant yàlla alhamdulilah. ñu doxantu woon fii nii si Diamaguène fas yéene leen laaj quelques questions rek si mbër mi naka ngeen ko gisee seen mbër. waaw tout d'abord dañuy sant yàlla bu baax a baax te ñaan aussi yàlla ñu fekkee bis bi dugg ci bismillah gën ci alhamdulilah ah mbër mi nag day suñu doom te suñu jarbaat en même temps di doomu dëkk bi waaw mun nañu borom dëkk bi la même temps muy Siteu muy mbër mu neex a encourage muy mbër mu neex a faral aussi quoi parce que du tricher. benn am na jàmm ak dëkkandoo yi ñëpp jàmmal la sekk ak ñoom en même temps vraiment muy jàmbaar aussi moom pro lu euh, mu tëdd ni ñu ko mën wax waxee mooy bisam moom du sedd yéen moom xam ku ne xam na loolu ci Siteu vraiment bisam du sedd te gis naa ne lim lépp lu mu mës a bëre ci àdduna combat fi mu ko teg tegoo fenn ci sama njàngat. loo jàpp lu tax nga jàpp ne combat bi mu ko teg tegoo fenn. waaw boo xoolee tey jii Siteu mi woon ak Siteu tey sa fait deux y a changement tey jii boo xoolee. su ngeen seetaanee samedi yu paase rek seen jàkkaarloo mujj bi rek ni Siteu doon waxee ak Siteu mi ñu gis ci taxawaay ak ci liggéey ak li nga xamante ni tey jii que mooy li euh, mu entraîné man pour man làmb jooju warta sax diire cinq minutes ci diggante ak Modou Lo man gis naa. cinq mu daan Modou. sama man li ma gis ci kàttanu yàlla yàlla nañu yàlla may fekkee ak tal juróomi minutes du ko weesu mu daan Modou loo ñu dem seeti leneen roi bi moom dina ko indi jàmm ci kàttanu yàlla gis naa loolu man incha allah rabbi da ngeen ni roi bi fii la jëm si. fii la jëm si bu boobaa kay le le 24 le 24 la novembre incha allahu rabi kuram gi def France fii ci jàmm gën lii man maa la ko wax. mais ñu gis ñu bëri ñu ne Siteu ni mu naan waxee face to face yeeg ni mu naan harcelé mbër ak saa yu Modou jugee wax day noppi ñemewul Modou looy ton si lool ko waaw loolu moom ci moom wax na ko nee na respect moo dox digganteem ak Modou Lo mais nag bu weesoo respect boobu moom bis boobu su ñëwee dina ko jox ak xam ba mat sëx xëy na am na fu mu teg Modou Lo parce que nee na Modou Lo du mbër moo xamante aussi mbër mi ñuy saxa saxate la quoi du mbër moo aussi du cuune waaye nag respect bi mu am ci Modou Lo moo waral muy doxalee nii rek mais vraiment que gis nañ ni Siteu mii ci li ngeen gis ci euh, jàkkaarloo yi ak Siteu bi ñëw jouru làmb ja dina ute trop lii maa la ko wax. noonu nee na Siteu bi ñëw si fees su fees yi ak bii ñëw si jàkkaarloo yi dina ute Bamba dugal ñëwal ñu jëlaat. gannaaw bi mu am leen lu mu si yokk rek loo ci mën a yokk si kàddu yi mu wax. waaw salaamaaleykum gars yi maa leen di nuyu di leen ziar. waaw di leen laaj ne seen wàccuwaay aussi di leen wax ne li ngeen ñuy laaj moom dinañ ci sawar trop trop trop quoi. waaw parce que combat bi moom mooy li leen wax rek ñun waa jàmm gën lañ te jàmm gën moo ñu ñor te booy bi xam nañ fu mu jóge xam nañ fi mu jëm te fi mu jëm dafa war a àgg si kàttanu yàlla. waaw man daal loolu laa amoon li ma leen di wax di leen xamal nag Modou Lo li fi mu jot jaar na xam ne combat bi nii nii nii nii nii su ci génnee ma xam ne mbër la quoi parce que booy. Modou jaar yëpp. fi mu jaar yëpp laa la wax combat bi contre moog su ci génnee ma xam ne mbër la parce que booy bi. xam Modou amati na benn pression si combat. combat bu koy jaaxal wala adversaire bu koy jaaxal. no si foog foog foog loolu moom moom moo ciy xalaat mais li ma la mën a wax mooy que ne. am na yu mu jaar mu yomb si moom mais du booy bi waaw booy bi saa yu ñëwee rek ñu ne mën na wala mënul mais boo moytul booy bi moo koy trompé quoi waaw parce que man booy bi man dama ko xam. dañoo seetlu Modou ñu ko gën a ñemee bëgg koo attaqué ñooñu la seen combat di gën a gaaw ñooñ lay gën a gaaw a ay jël yi muy daan si ñooñu lay gën a gaaw est ce que yéen a ngi bàyyi xel loolu. non booy bi moom pour pour ma wax la booy bi moom chaque jour rek ak lu muy indi. booy bi boo moytu xam nga Modou dafa yaakaar mën na nax booy bi booy boobu du booy bu ñuy nax bu moytuwul moom booy bi moo koy nax waaw na bàyyi xel booy bi bu baax booy bi beneen booy la mais nekkatul booy bi woon waaw si Siteu na mënuloo xam ne ne du Siteu boobu mu yaakaar moom lay def comme ni mu jaar si ñaar ñu mujj nii noo Siteu du ñooñu waaw te di bu moytuwul rek mu am lu ko bett waaw ci bii waaw waa ci kombaa bi i noonu kon Bamba dégg nga li mu jeex nee na bu Modou deful attention rek dina am lu ko bett ci combat bi kon dañuy daal di xuus di doon suivre Lutte TV ñu ngi leen di kontaanee bu baax baax di leen wax ngeen gën di woyal di abonné wu di aimé di partager solo démb ñu ngi woon fee parcelle tey ñu ngi waat fii jàmm gën jëlaloon leen rek réaction waa jàmm gën yi comme ni ñu defee woon fee sa parcelle di leen wax ngeen gën di woyal rek comme ni ma ko waxee di abonné di te di partager da ci am solo ndax looloo ñuy gën di dooleel Lutte TV c'est le meilleur moo nekk ci kaw ci kanam mooy seen bu mag bi di jëfal euh, waa original KPI Eric Favre Notion ak ñi nga xam ne ñoo nekk waa kër Serigne Saliou borom ginaar yu baax yi ginaar yi toll ne nag lan lay jox jërëjëf Bamba ci caméra bi jaa ngeen jëf ba beneen yoon ak yeneen yi yu garaaw a garaaw